ce qui s'est passé mooy président Macky dafa nekk ci benn situation nekk arbitre war fi jóge organiser élection dans d'excellentes condition kenn bañ a taxaw ëllëg di contester président bi fi nekk te yàlla rek moo xam président bu fay nekk parce que mën na sax moo ne am mu bañ a nekk su ñun moom en toute responsabilité crédit des institutions mu taxaw ne ah lii kat comme que am na assemblée am na lu ñu yëkkati mën naa jël ay mesures conjoncturelles arrêté li nga xam ne moom laa muy convoqué collège électoral bi pour ñu ñëw voté si il l'a fait en toute responsabilité après conseil constitutionnel ñëw na jël na décision am au moins pour une fois Amadou Ba qui a toujours tiré sur le conseil constitutionnel au moins chaque fois si il a fait un exposé pour dire qu'il est en phase avec le conseil constitutionnel c'est toute l'opposition c'est malheureux c'est malheureux mais c'est malheureux euh, sur non, attends, on leur rend hommage non heureusement non, non, attends, <laughs> laisse-moi parler aujourd'hui on leur rend hommage mais même, a défendus la semaine dernière <laughs> mais c'est tant mais même na même na non da ngay ñëw même na c'est tant mieux encore pour la démocratie au moins tey nañ benn var di xaar ëllëg su conseil constitutionnel ne suñu candidat moo gagné ñu leen di xaar ndax dinañ contester conseil constitutionnel. ah eh, non mais bien sûr ah dinañ koy contester dans ce cas waaye parce que simplement vous ne parlez pas en tant que juriste. vous parlez parce que vous êtes un politicien. loolu moo fi nekk donc aujourd'hui tey li bees ci wax bi mooy depuis combien de temps ñuy accuser la justice depuis combien de temps ñuy accuser conseil constitutionnel chaque jour devant tout le monde loi justice conseil constitutionnel wane ne li ngeen jàpp amul man je suis indépendant. et il prend des décisions tey heure bi képp ku doon taxaw di xas conseil constitutionnel di traité les sept sages di leen traiter de tout les noms tey heure bii décision bi gàcce la si yow ñun on est fiers parce que ñun ñu varier ci conseil constitutionnel ñun accusé wuñ ko ne dañ leen corrompre histoire bi soo koy nattali tey nga ne après da nga naan wuñ ko jël na décision boo xam ne a priori mun nañu jot ne décision bi arrangé wuñ déggoo ñun fu ñu critiquer décision bi donc le bloc républicain. ak le bloc anti-républicain. même dans l'opposition. oui. quand le la mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. donc aujourd'hui fee yi am soo doon catégoriser ñaari sénégalais ñan ñooy bloc républicain bloc anti-républicain bloc politique bloc boo xam ne il est logique yaakaar naa xam nga fan nga koy jëlee mais seen. mais mais Pape Malick léegi yow nee nga conseil waxul nañu organiser élection bi. à, à telle date. Mm. J'ai vu hier ngeen euh, ñenn ñi en tout cas du camp euh, de Benno di accroché wu dans les meilleurs délais. Mm. naan waa Pastef da dangeen teel a crier victoire euh, y un boulevard. élection bi bu conseil constitutionnel waxee euh, ne mënuñu reporter élection bi parce que mënuñu proroger l'article 31 parce que dañuy yokk mandat présidentiel. Mm. que bi dañ ko war a Euh, mu nekk en conformité avec la fin du mandat mm-hmm. yéen ban entendement ngeen ci am yéen waa waa waa waa benn amul fenn fu ma gis man ci décision conseil ñu bind ne premier organiser leen élection dans les brefs délais virgule non dans les ah, ah, ah, meilleurs waaw dans les meilleurs délais virgule organiser leen ko voilà virgule organiser leen ko avant amul ok donc man je suis avec ce que man li ma jàpp mooy tey lu coow li di bëri bëri yëpp benn acte la ñu war a poser pour fixe la date des élections Dieu a fait que cet acte là c' un décret te président Macky Sall mooy signé décret moom nag mi am xol bu rafet ne lii ma war a signé nii kaa leen ñu pencoo ko te yàgg koo wax ne wu tey la ko wax démb la ko waxoon ak barki démb yaakaar naa kooku war nañ mën a xam ne motivation am dëgg dëgg dëgg dëgg ce n'est rien d'autre que ñu dem ci élection si jàmm ak saa. mais il faut organiser l'élection avant le 2. non xaw ma man xaw ma parce que le maintenant lui ñoom comme que c'est des adeptes de l'exclusion moom nee na ñi ñu war a consulter du sëriñ du sénégalais lambda bi du fonctionnaire yi nee na am na benn 19 sénégalais boo xam ne moom rek dañu war a consulter pour parler de l'avenir du Sénégal. non non non attends rek non non il a dit clairement que le président sant ñu ko mu wax keneen ku dul 20 yi man jàpp ma loolu pour man si période bi ñu toll aucun sénégalais n'est de trop pour parler pour discuter avec le président de la mais taxaw rek ne way 20 yi lañ ko wax ma léegi na gis 20 candidats yi ku ko mën tat ko am na si a wax ne ko man président su ma sañoon nga dem ba ba décembre 2024 am na ku ko mën a wax non par exemple donc man pour man pour éviter tout ce problème là nañu gën a waxtaan na ñëpp dem toog ak président ñu ñëpp ñu ànd toog ñu xool lan moo logique d'abord lan moo xam ne matériellement mën a nekk non je suis yaa ngi dégg. yaa ngi dégg parce que dafa am impasse comme vous dites situation exceptionnelle mesure exceptionnelle une situation boo xam ne da kenn prévoir ko mais am na ci waxtaan lu ko mën a prévoir ñu mooy pencoo bu ñu war a pencoo dëkk bi sincèrement yéen ko wax yéen ne am na impasse. moom yow yaa ko sax yaa ne impasse la ñu am yéen ñëpp vous l'avez dit attends ñëpp nee nañu am na impasse. dañ ko d'accord ñëpp dañ ne impasse cas non prévu ñëpp wax nañ ko. mais cas non prévu non attends la vérité jël leen 15 jours de campagne ngeen jël délai yi yi am ngeen ko calculer ko ngeen xool ndax le 2 avril ndax dina jeex wala du jeex mais commencé leen mais commencé leen le 3 mars ngeen continuer ko ba le 3 2 avril nga xool ndax dina jeex am na date def élection def campagne 21 jours la. am na def ah, xaaral mais loolu mooy waxtaan bi. mais mais moom la wax nañ ñëw ci loolu. nañ ñëw ci loolu dafa am datu campagne la. am datu vote benn jour la am datu publier résultat provisoire ay jour la am datu publier résultat définitif am datu proclamer am datu organiser second tour loolu nañu wax ci objectivement est-ce que tey matériellement li loi wax suñ ko toppee fii ak le 2 avril dina am dina jeex la du jeex. mais bu ngi noonu nañ ko wax rek dëggantaan après tu concept impasse bu fi am mu nekk dëgg ñëpp war ko nangu ñu ne donc nañu waxtaan pour éviter yu mel nii di am pour éviter Amadou bi taxaw ci télé bi wax ko neex. tegu ko ci droit tegu ko ci dara xaw ma Chypre la jàngee droit xaw ma fu mu jàngee droit di wax lu ko neex di jaxase xelu sénégalais parce que nee na Chypre la jàngee ah c'est lui qui me l'a un jour il a fait le droit aussi. tu as fait ah. donc yow droit international Chypre nga ñëw jàng ko ñëw fii bëgg ñu interpréter le droit sénégalais bi nga xam ne constitution bi dafa clair donc vraiment loolu la ñuy bañ yaa a beaucoup d'intoxication y a beaucoup de ngeen baal ma ci li ay yoo xam ne teguñu ko fenn non non mais c'est la réalité non non ko gëmloo nit loolu amul loolu nag pour l'éviter waaw ah, waaw même rek même rek même waaw même ma yeggali man bu ngay wax ah, Amadou bàyyi ko mu ah, fekkee da ngeen wax non non je te la vérité c'est-à-dire lu bëri lu ngeen wax ce n'est pas la vérité c'est pas conforme à la vérité tey aujourd'hui nay mën a lii laay samp laaj ku ci nekk na jël bi gëm fëyam jël ñaata jours la ñu war a dem pour campagne nga plus ci ñaata jours la ñu war a def nga xool ñaata la lay jox. on ne fera pas 21 jours de campagne. mais bien sûr pourquoi. Ah, mais les gens ils vont se concentrer mais mais fu ñu ko teg. soo ñëwee taxaw ne 21 jours candidat bi ne man d'accord naa 21 kii ne man déedéet 21 jours du ci mos a def dañ koy def mais da ngay am impasse. donc loolu lu muy andi mooy waxtaan dafa war a am loolu moo nekk dëgg ku wax leneen lu loolu yaa ngi créer situation exceptionnelle voilà dialogue consultation luñ ko mën di tuddee. voilà mais luñ ko mën di tuddee luñ ko mën di tuddee bon malheureusement moi